marche bi nga xamante ni bii ñu ngi koy amal ci Cincinnati ñu ngi ko waajal fa nga xamante ni bii moo di downtown maanaam centre ville waaye nag looloo waral communauté sénégalaise bi yëpp dajee fii ci kër Serigne Touba gi ñu wax këru lislaam lépp rek ngir waajal yoon wi mu am ay bus yoo xamante ni bii di ay car moom la ñu waajal ngir jigéen ñi ak góor ñi ñëpp dugg ci ñu jamal ca barab ba. marche bi ñu ngi ko waajal ci 11h gannaaw bi nga xamante ni bii dugg nañ ci oto yi jëm ca barab ba. ñu agsi ci centre ville bi gannaaw bi ñu rombee pont yi ak gratte-ciel yi dugub ci tunnel bi daal di génn bañ fa agsee fekk nañu police bi taxaw di xàll barab ba gannaaw yenn waxtaan yi nga xamante ni responsable yi amal nañ ko ak police bi ci la Serigne Mamour Mbacke ñëw ak délégation am ñu daal di tàmbali li nga xamante ni bi moo di marché bi ñuy dégg baatu laa ilaha illallah di jolli laa ilaha la drapeau bu Sénégal ak bu Amérique ñu koy seen ay banderole yoo xamante ni bi ay message yu am solo moo ci nekk ñu bind ko ci anglais lépp rek ngir wane message yu l'islam ñu message yu jàmm waaye tamit dëgg-dëgg mission Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xamante ni bi tey kenn naatablewul ni réew yu mag yi day am na fi place bu wér a wér a wér te sëriñ Mamour Mbacke leeral na ko bu baax a baax moo tax sax dañu gis léeg-léeg euh, lii baax na ci lool li mu wane it mooy sëñ Touba képp koo xam ne wane nga ko wane wu ñaawit sa jëmm nga wone waaye moom wonewuloo ko moo tax bu ñu gisee ci barab yi ñoo xam ne dañ fiy ñëw di dox doxin wu ñaaw woo xam ne rawatina ñi dem ci biir barab yi lislaam yi barab yi jàkk yi di fa di fa di fa fecc ak di fa def jëf ju ñaaw yoo xam ne lépp ba noppi nag buñ ko doon def sax ci seen turu bopp waaye di ko def ci turu Cheikh Amadou Bamba mi nga xam ne lislaam moo ko may lii waaye nag lii lépp dafay wone ne rek ne Euh, moom waxtu wu ne rek ñi koy wane saa fu ne mën nañ ko faa wane ñi koy gàkkalit waxtu wu ne ñooy gàkkal seen bopp rek kon dafa mel ne lii ndam la ci moom day wone it waxtu wu ne ne lam nekk moom ku ko bëgg a jaxase wala nga bëgg ko ñaxeel tamit euh, ci rek lay mujj dellu kon lii daal ndam la ci lislaam wante ndamu Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xam moo ko rafetal ndam la ci jullit yëpp tamit nga ndam la ci jullit yëpp ndax fii ñu taxaw ak ni lislaam demee nga xam ne ñëpp ñu bari ñu ngi koy xool bëtu bëtu safaanu lu baax euh, suñu amee lii dafa mel ne kon loolu ndam lañ loo xam ne dañ ko war a jëfandikoo dañ ko war a téye bu baax. mel ni kon marché bi day firndeel rek ni lislaam moom fépp foo xamante ni bi yaa ngi ko bëgg amal boo ñëwee rek te seelal ko mën loo ko foo matal ba mu mat sëkk ndax kat diine jàmm la. sëriñ Mamour Mbacke indi ay leeral yu am solo ci kaddu yi nga xamante ni bii wala boog jëf yi nga xamante ni bii dafa jiboon fii ci Cincinnati yi lépp rek ngir gàkkal derub lislaam wala boog derub yoonu murit waaye tey jii sëñ Mamour Mbacke indi na ci ay leeral bu baax a baax Abibou Mbaye downtown Cincinnati